wala ci banque mondiale yaakaar nga sa musiba man chaque jour ma wax ko ma musuma ànd ak ak FMI musuma ànd ak banque mondiale parce que dama jàpp ni que ñooñu développé wu ñu réew te banque mondiale bu la gërëmee FMI bu la gërëmee mooy maanaam yow yaa ngi ci musiba chaque jour ma wax ko fii demal nga laaj économiste yi donc man du bataaxal bii ni la kontaan wala leneen ak leneen dama ne. non bataxal bi Arfan. dama ne modification buñ ñu si wax. dama ne Sénégal tamit euh, les services étatiques ñu génn léra parce que Aminata Touré dem génn na euh, wax lu bari ci lolu mais en fait ba léegi dalul xel concrètement Arfan. dama ne le Sénégal économistes yi ñoo ñuy wax ndax ñun suñu économie on court un risque wala danger la. non FMI. wala wala du danger. fi ñuy jëlee dama du FMI ñun dañoo am ay agent agent économistes on a des économistes dans ce pays hmm. FMI lu l'EDF banque mondiale lu ko lay def parce que ñom buñ lay jox assurer le rapport de l'équité du assurer le rapport de la démocratie financière mais maintenant ñu jox la xaalis yow nga xool ci secteur bu la neex nga dugal fa xaalis bi déedéet ñoom lay orienté donc il y a pas un débat de démocratie. moo tax ma ne la FMI bu lay jox xaalis moom moo lay orienté c'est-à-dire que daf lay dicté donc man xaaruma ci moom leneen xaaruma ci FMI man suñu économie si Sénégal fii laay wax nañu génne wax ñu lu am nañu génne wax ñu lu am bu fekkee Sénégal dafay courir un risque un danger parce que ñu ñu fi nekkoon dañoo yóbbaale lépp contrairement à ce qu'ils disent hmm. ñoom Abdou Mbow dañu ne non président Diomaye bu waxee loolu non waxul lu am ñun dañuy dem bàyyi nañu fi xaalis bàyyi nañu fi économie bu takkoo takko dama ne léegi FMI lu mu wax ni ñom fa lañ ko teg nañ dem répondre FMI nañ dem répondre tout simplement. mais li FMI génne ni dafa arranger wa euh wa wa wa ñom ñom ñom Abdou et compagnie. dama né arranger wu kenn parce que euh, d' après euh, FMI euh, chute amna na. japp que ñoom nañ cinq mois. dama ne peut-être m'aura impacté concrètement Cinq mois, il n'a pas un budget, on n'a pas voté un budget dans ce pays. cinq mois. non, non, non, fallo, fallo, fallo, on s'écoute. Mais Non, non, non, dégoulou-moi. Cinq mois, allez. Votons-nous un débat. Défons-nous un débat d'orientation budgétaire. Votons-nous d'ara. votons nous d'ara. Tu ne peux pas me dire que non, ce pays-là est en, ruine, qu'il est cinq mois là. Il faut arrêter ça aussi. Le, oh. est à moi, comme yo ko xamul état na moy doxee euh, moy wax ni comme yow cinq ans tu me dit que l'économie du Sénégal est en ruine parce que ñi traversé nañu 5 ans 5 mois légui ñu jël économie kii euh, xaalis bi yeb di ko pasar paseraay demewul noonu. ñoo ñoo créé eurobond bi. Macky Sall ay compagnons. bon dem dem ngeen jël fa exactement enfin loolu laay wax ni. Euh, euh, raas bi euh, aussi il faut ngeen. leeral ci côté boobu Arfan il faut que il faut que ñooñu ça dit que Sénégal da ngay tenir un langage de vérité. da ngay wax askan wi lu am. Hmm. parce que ñom ñi fi nekkoon ñom ils sont habitués à ces arts de magouille à ces arts de propos fi la ñi taxaw di sénégalais l'économie a deux chiffres oui. waaw <laughs> Fallou am wala amul. Sénégalais non l'économie du Sénégal est en bonne santé croissance avec deux chiffres non non non <laughs> alors que Sénégalais sentiruñu ko fenn ñu fa fete ak bi de maquiller les chiffres dañuy maquiller les chiffres dañuy ay chiffres même économie vous savez bu est ci deux non croissance à deux chiffres alors que mu ngi alors c'est clair donc tu euh, peux pas continuer ci mécanisme bobo. alors c'est clair kii bu ñëwee dafa bëgg transparence des gars carlo Askane, wi hey, leen hey fii fekkuñu fii dara fii dara amu fi contrairement xam nga mënoon nañ ko def ñoom ñu non l'économie du Sénégal est en bonne santé. Hmm. xam nga ñoom jomaay mënoon nañ ko def. Hmm. di nax mais ça va ça va leur coûter cher notamment il est préférable de tenir un langage de vérité envers la population Nélène, leen fi fi comme Khalis, li la fi fait ci chiffres ay croissance bi mais Jean-Paul Diaz enfin réagir na. non Jean-Paul Diaz euh, politicien Euh, ne mi attaqué Ousmane Sonko. oui il est de Benno Bokk Yaakaar c'est normal en ruine contrairement à ni Ousmane Sonko xalaatee. Mm. ak ni Ousmane Sonko waxee que le pays est en ruine su fekkee ni peut-être dañoo mm. mënul. wala kon mm. li ñu leen dénk leen antanu nañ ko wax concrètement. Euh, yan jàng daa def si kàddu yi nga xam ni Jean-Paul yëkkati na par rapport ak wàllu économique comme ak komal gi est-ce que ñoom war nañu tenir que le pays est en ruine ñu war a rassurer sénégalais ñu leen décourager loolu. Euh, maintenant maintenant yow léegi

Jean Paul Dias. Mm. bureau am ñoo jàkkaarloo ak bureau Macky Sall <laughs> li ma lay wax nii lu am la pour yow man dama nekk nii nii di caaxaan di kii di fallu man jommal loolu jommal naa ko sama bopp. wax lu dul dëgg. Jean Paul Dias bureau am ak bureau Macky ñoo dende pale sa à day taxaw ni jàkkaarloo ak bureau Macky Sall liggéeyal na Macky Sall pendant douze ans. boo weddee nga laaju doomam. Barthélémy Dias bokkul ah, ngam ngam kat moo tax ma ne la bu waxee nii ay kaddu politique lay wax. tu veux que qu'il te dise quoi Ni que l'économie là est malade déedéet Jean-Paul va te dire que Ousmane Sonko waxul dëgg No économie Sénégal est en bonne santé c'est loolu kese la mën wax pour sauver les meubles parce que mon bokk na ci gi. il est comptable du bilan de Macky Sall moom Jean-Paul tu veux qu'il te dise quoi l'économie du Sénégal euh, mu ngi traversé ay jafé jafe fan yi wax même chose que ñom Abdou Mbow lu wax c'est ça la réalité c'est ça aussi la cohérence te yow au sein d'une coalition voilà d'un parti ngén gérer ce pays là pendant 12 ans même si même si ça ne va pas tu es obligé de défendre votre bilan c'est ce que Jean-Paul Diaz fait comme ça il est en train de défendre le bilan de Macky Sall té mëno ko ci Méré, dédé même si yàqul dama ne xam nga fan la ñuy xamee ni que économie senegal am am na nekk na ci nekk mu ngi ci jafe-jafe wala nekkul ci jafe-jafe. Hmm. xaal du installer nañu le pôle judiciaire financier. Hmm. légui xar leen ñu ñu ala xar ñu xuus ñu xool léegi xar leen ñu xuus ñu xool. alors ah bah, c'est clair exactement. xam jarul jarul débat ñi wax li di tel tel tëli comme tey lañu installer euh, ce pôle judiciaire financier là. Hmm. la xar leen ñu xuus. tuuti wa installer nañu ba ba légui xar xaar ñu xuus. alors c'est clair man bokkuma ci ay ñi nekk di parlo wala di wax lii. Hmm. dañu ne bal xar leen tuuti bañu commencer commencé ci les rapports là. di ngeen xam ni que suñu xaalis mu ngi fii intact kenn jëlu ko wala dañ koy yóbbaale dem seen yoon ñoom. alors mi ngi noonu exactement par rapport ak pour judiciaire financier bi waaye itam cadre yi nga xam ni itam euh, moom la Jean Paul Diaz daal di yëkki daal di jàpp ni le pays n'est pas en ruine euh, Ousmane Sonko génn si mu ne. alors euh, mi ngi noonu exactement ñu daal di jàllale leneen di ko de la régie El Hadj Afan ginnaaw loolu ñu ngi waajal le 17 nag le 17 Ousmane Sonko wooteeti foofu si.